Nous sommes la matin, on souffle la fraîcheur de l'innovation, nous sommes les enfants de la télé. mag mbokk internet di ñoo ngi di nuyu bu baax a baax comme d'habitude ay ndaan lañ fi dalal ndaan bi ne dalal nañ ko mu wax lu rëy Sénégal yëpp teg seen bët mu daal di ñëwaat comme ni koy waxee ku dolli tere dolli neex la voyante l'intellectuelle des voyantes mm-hmm. moom nu koy tuddee à chaque fois sunu yaay Awa. asalaamaaleykum maa la raw sama doom. bàyyi ma baal nuyoo ba pare. asalaamaaleykum. Eh, maa ngi nuyu mbokki àddina di nuyu uh, àddina wërngal këpp di nuyu nag ñi nga xam ne ñooy waa diaspora bi mhm. di nuyu ñi nga xam ne ñooy kilifa aada yi kilifa diine yi mhm. di leen sargal di leen ñaanal yàlla ñu ñaan yàlla ñu yàgg fa lool di ñaan sàkku it ñoom ñaan ndax ñoom kilifa diine ñoom dañu war di sàkku ci ñoom ñaan saa su ne di ñaanal ñi nekk ci wàllu hôpitaux yi yal na seen bopp mhm. ñi nga xam ne it ñoom la caabi féete ginnaaw tegg leen natt ba ba dootuñu dellu ci ca la leen la taxool ñu dem ca darajay Seydina Muhammad di sargal ñëpp di ñaanal nag ñi ngi dugg nag ci weeru koor weer bu tedd muy weer woo xam ne weeru yërmande la mi wéeru occasion boo xam ne ku ne mën nga cee tuub say bàkkaar jéggalu ci yàlla jéggal ñu ci yàlla nañ ci yàlla jéggal lépp luñ ci war yàlla nañ ko yàlla nangul bi jaay Seydina Muhammad mm-hmm. nga lu mu koy teg tegee benn benn nga xam ne intellectuel moom mooy wax comme ni koy waxee ak sa fois sañse ko tuddaat parce que tamit comme ni ñu koy waxee saper mm-hmm. c'est la sa yaay moom euh, tubaab la. Mm-hmm. ah man su ma ñëwee damay sañse damaa civilisé. dëgg la. damay sañse tagal ba mu ba mu rafet. te ku ne xam nga ne la civilisation augmente la valeur d'une personne. te ni ku ne da nga war a valoriser sa bopp. te nag bu fa ne on est des sénégalais. civilisation. Mm-hmm. sénégalais lañ ko xame kii nous peut. ah jongoma. Sénégal lañ ko xamee. ceeb bu neex. Mm-hmm. Sénégal lañ ko xamee. dëgg la macha allah cuuraay lu neex. Mm-hmm. parfum bu baax. ah sénégalais lañ ko xamee macha allah sama doom bu ma yëngal waaye. Eh, eh, lu mu bëgg wax yàlla bu ma ko wax. <laughs> Eh, commencé waat. Mm-hmm. comme ni ñu ko defee woon def nañ benn émission bee paas mu daal di toj àddina. Mm-hmm. waxoon nga ko. Mm-hmm. sant yàlla sant yàlla bu baax a baax. xam nga des fois ngay wax ma du baram ci la ngay wax nga ma maman. xanaa yow balaa ma balaa may yeggale sax nga xam fi may waxee. dañ doon chaque la. wax ju yegg dafa koy moom. xam yàlla bu baax di ci Seydina Mohamed ndax nga wax mu yegg yàlla la neex mu yàlla suñu borom te neewoon na ne man soxna Awa Fall incha allah rabbi dañuy qualifié néew ma woon na bu ñuy dem dañuy amee dara de dama ne leen bu ñuy bu sobeel dinañ qualifié te lañ defoon la ñu defoon ISRA loolu lañ koy defaat te yaakaar naa loolu loolu loolu dañul ba tey Sadio Mané moo mujj tiré but ba moo mujj dugal ñoo ji gagné te noonu la demee woon ca ki nga xam ne mooy final ba te it nañ ko defaat kon nag dañ koy santewaat yàlla suñu borom santaat yàlla suñu borom soxna Awa Fall mii taal wu yàlla jàlla ku ko jàll mu jël jëli ku ko jëlut mu jël jëli kon tey jàll mu jël jëli soxorante beeg bon bi baaxul. nañ ko bàyyi mais mais bàyyi xaar bu ñëwagum foofu. damay teel a ñëw bu ñëwagum sama 18 bàyyi rek lii maa moo tax maa yow suñu. dañ jubóo ñu commencé raak. Mhm. waaw léegi nag ñu euh, nga mu daal di am Sénégal jaar fu mu jaaraatoon. Mhm. maanaam affaire yi nan la dikkee ay gént la woon wala maanaam sa pétaaw yi moo la ko wanoon wala nga toog ba gis ko. nee na woon naa la sama doom nga ne man naa man ko mënul dara du toog ci seen sées bi. waaw dafa leer fi may wasaare. ku tegul àddina toog fi seen sées bi. damaa yàgg toog di toj. Mhm. yàlla loolu dama koy sante suñu borom saa su ne li ma naan chaque jour ak sama mbir yëpp ci loxo suñu borom laa ko teg mhm. ndax yàllaay maye mhm. sant yàlla julli ci Seydina Muhammad yàllaa may may may wax di toj loolu si mbiri suñu borom la ku mu naqari da ngay ngay dem na ca yàlla nga jooy ko foofu mhm. lii moom lii la yàlla dogal man soxna Awa Fall maa ngi sant yàlla bu baax boo gisee nag ma waxee nii ma waxee dafa am ni mu demee moo tax ma waxee nii ma defee ndax man kenn ma dégg ci wax joo xam ne naq su leen noonu la man chaque jour sama wax chaque jour may ma tuuti ma ñëw bàyyi ma sa sama doom s'il te plaît may ma ma may ma yeggale boo ma bu ma paree nga lancé nga nga relancé waat ma may ma tuuti ma ñëw ah, waaw dama ne mhm. ku jëlu jooy yaa xam la ngay jooy ku nekk xam nga ki man danga ko dul nangu mhm. man soxna Awa Fall maa dëggal sama bopp def li ma war a def mhm. bi may gën a naan euh, dañuy dañuy kenn gënul ne dañuy qualifié kon dama koy sant yàlla suñu borom kuy jooy nag na nga jooy yàlla man li yàllaa ma ko may déggoo ma de fëgguma sama dënn néew ma maay kii wala may kaa dama ne rabbi sama waati wala addi borom jaami moo ma may lii ma yàlla jox kon nag alhamdulilah bi alamina tey ku dewoon ci suuf doon ma saaga rek te yaa may woo di ma ñaanal kon sant yàlla mhm. alhamdulilah sa léegi wax nga say biir wax maanaam dafa mel ni danga jàpp ne dafa am ñoo xam ne yéen bokk même métier bi di ngeen mhm. soxorante seen biir. dañuy soxor soxor nañu bëgguñu ko dem ku ne nag am na lu la yàlla may nag ku ne nangul li nit lu ko yàlla may boo nangulee li nit lu ko yàlla may rek nga sant yàlla ndax yàlla mooy wàcce ay yonent yooyu wàccewul kenn kese. dafa wàcce ay yonent yu bare bare ku ne am na lu la yàlla jox mission bu ne am na ku ko xam ne yàlla teg na ko say loxo kon nit ku ne bu la yàlla wàcce ci doo ngay doomi aadama def la ngay wax kat jël sa biddéew mu doon biddéew bu am na ñoo xam ne am nañ ay alal ju bare xamu leen dëgg la eh yàlla la neex moo tax doomi aadama yi xam ma lii la yàlla dogal ci man. ku ko bañ nag da ngay sonn. mais yàlla la neex tamit yeneen voyante yi tamit wala yeneen voyante yi. bañalu ma ko kenn man soxna aw faal waaye mais mais kenn musul fe kenn musul dégg samay vidéo dama ne dama ba nga déglu ma kenn musuma dégg samay vidéo man soxna aw Fall may wax naka su noonu wala ma naan beneen voyante mënul dara déedéet. du ma ko defaan ndax bu boobaa damay weddi yàlla suñu borom te man sama lépp ci sa loxo suñu borom laa ko teg dama ne la bañ bañ bañ bëgg waa ngi ni waajati ku ma ku ma tooñ nag man Soxna Awa dama lay duma amul werante waaw ah, mais mais dëgg la balaa ngay duma kenn man moom defal naa ko rek émission bi nag il faut il faut ma lay poser question il faut ma lay poser question c'est normal léegi yow moo la tooñ bu fekkee dem nga bay duma waat deel diw moo ma tooñ déggoo ma de du ma fi nekk naan diw la. wala du mais bu daw res. wuyu ma non munoo ñëw ne. daw res. kuy daw res du defee nii ma defee. mais déedéet bu fekkee dama ne kuy daw res du defee nii ma defee. bàyyi leen soxorante beeg ak iñaan gi. mais bàyyi leen soxor gi ak iñaan gi xam ne ku nekk am lu la yàlla may man li ma yàlla may dama koy tëb may wax ak askan wi yàllaa ma teg ci ci àddina may wax ak askan wi par force. doole maam damay wax ak askan wi te su ma gisee loo xam ne nekk su loon ci askan wi damay gën a wax loo xam ne lu baax la ci réew mi ci réew mi laa bokk fii laa juddoo fii laa yoroo toll ni ma fi toll fii la ma yàlla mayee li ma mayee kon nag euh, équipe bi bu waree dem dama koy wax bu ñu waree génnee sarax man soxna aw Fall li jëntuwuma keneen ku génnewul sarax man sama part personnel dama koy génnee ndax yaay laa ci biir dëkk bi tante laa bàjjen laa lépp laa ci biir dëkk bi kon nag mënoo juddoo ci dëkk bi màgg ci dëkk bi te doo sa dëkk bi lu baax mënta nekk naan ndox naan ndox léegi baa ma posé question ndax nga naan ndox léegi wuyu ma léegi ka moo la tooñ man question bu laa bëgg nga tontu ma. dama ne la kuy jooy jooy yaa xam li ngay jooy man daal xamal li ma wax wax naa ko. dama ne ko ci nekk ku ne. da ngay toog ci sa wax li la neex fii ci sama site la. Mhm. lu ma neex laay wax. moom sa kër la moom. sama kër la maa ko moom. léegi dafa am ay voyante yoo xam ne fu mu toll nii yéen a bokk même table bi ngeen bi ngeen di lekkee maanaam su ma waxee même table yéen bokk même maanaam li ngay gis ñoom ñoom la ñuy gis ñoom la ñuy gis. Mhm. Euh, ñan la si xanaa Aida Sine Saliou ngay waxal wala Selbé Ndom wala wala yeneen voyant yi kan la si ñan la kan ngay waxal. Euh, sama doom bu ma wax loolu lu ma waxut. déglu ma non non pose question. xoolal na wax ji normal. wala ma teg micro yi dem sama yoon. non mais doo teg micro yi wuy ma question bi ma wax man li ma wax posé ma question man maa waxal sama bopp. dëgg neexul ma ne ku ñemewul fi nga jëm mooy am lu muy yox yoxal man aw man soxna aw faal amul lu may tiit amul lu may ragal ci àddina xam nga man kan laa ragal rabbi sama waati wal ardi maa ngi sant yàlla ba nga xam ne yàlla may na ma may wax doomi aadama di dégg maa ngi sant yàlla bi xam ne ba ma waxee doomi aadama di ko dégg te yàlla di ko yàlla di wéral samay gàddu lii moom sens léegi léegi a génn foofu parce que nag amatul sens euh, wuñ na euh, mhm. léegi bàyyi nañ maanaam si coupe si coupe d' coupe d'Afrique qualification coupe du monde bi euh, fu mu daal di def lii di bi def nañ ko sax ba pare mhm. noo gisee Sénégal fu mu toll nii si waxaat naa comme na ma waxee woon sénégalais yi danañ dem ca coupe du monde ba danañ fa def lu mucc ayib barki sëriñ tubaa lu kenn yaakaarul woon barki sëriñ Touba du ma gën ci sëriñ tubaa ay fan taalibay xaadim rasul pur la mhm. pur et man sëñ Fallou seexal sama maam barki sëriñ Bamba mhm. ñu jëte waaye ma doon sirif nag kon du ma wax loo xam ne nag su leen noonu la xale yi danañ dem te Qatar mhm. danañu fa def lu mucc ayib barki sëriñ Bamba après ci biir nag dinañ toogaat fii man soxna Awa Fall mën la nii lay demee nii lay demee nii lañ demee waaye si kàttanu suñu borom danañ fa def lu mucc ayib. lu ñëpp koo xam ne loo xam ne kenn xalaatul woon ne Sénégal dana fa yegg Sénégal xale yi danañ fa teg seen baaraam. Sénégal bu mu mujjee dem lii di coupe du monde 2002 euh, la woon. 2002 mhm. moo nekkoon première fois ñu demoon. Mhm. génération ñoom El Hadj ak ñoom Fadiga. Mhm. ñu àggoon lii di quart de finale. est que jàpp nga ni bii fa génération ñoom Sadio Mané Ismaïla Sarr ak ñoom ñëpp. dañ passé lii di xale yi ma gis nii mhm. ak ni mu doxalee nii mhm. ak Aliou Cissé nekk seen wet nii mhm. ak ni ko xale yi géré nii ak sénégalais nu ngi nekkee Macron beeg nekk benn jàppale xale yi nekk seen ginnaaw barki Serigne ma lu ko raw danañ ko dem man Fall maa la ko wax danañ fa joloru rëy lu kenn yaakaarul woon dina da nga wax ji xanaa dëgg naa su ma ñëwaatee fii nag. <laughs> ci lay gën a neex nag dinaa la tegal wax escoré escoré foofu laa gën a sigéey li may wax fa laa koy tojee mais fii nii li ma la wax dañ laa la wax newoon naa leen dinañ qualifié ñu ne déet ma ne coupe dina indi am ñu ne déet am ñu ne waaw mm-hmm. te tey anamu ba mu amee lu ñu def. Mm-hmm. ñamaroon ñamaroon critique ci suuf ñamaroon ñaanal mm-hmm. am na wala amul dañ koy sante yàlla ba tey mm-hmm. kon ba tey teg teggu tegi jégigu ma sama wax ji ci sartal mustaqim mm-hmm. am na wala amul dama na la bii incha allah roba ca Qatar danañu am lu raw suñu njort incha allah ci xale yi jërëjëf xam ngeen ko l'intellectuel des voyantes moom lañ dajee il faut yaram bi na day tàng nag man moom lii moo tax suñu plateau di neex donc loolu moo waral euh, Sénégal Afrique monde bi Afrique Amérique ñëpp di kontaan si moom parce que mhm. euh, lu leer la leen di tegal dégg lu wax maanaam si coupe du monde bi nañ leen xaar parce que dañ ko indiwaat tamit match à chaque fois benn match bu amee dañ dem si di nga ñëw toogaat fii mhm. buñ jógee maanaam si match bi temps yi Euh, dañuy avant ñuy àgg sax si si wàllu politique ak yooyu dañuy dugg si maanaam loo xam ni xam temps yi yëpp mooy mooy Sénégal. Mhm. yow intellectuel nga. wax nga mhm. ko te boo waxee Sénégal yëpp na lay déglu. Mhm. Euh, ay xale jigéen yoo xam ne ñoo ngi fële sa mbuur. def ay vidéo yoo xam ne yu ñaaw la. noo gisee vidéo yooyu yow mu ko gisee en tant yaay. xanaa yombi. waaro. ndax damaa xamul ay xale yu ndaw yoo xam ne boo leen laagee seen at mhm. man soxna Awa Fall damay jombi man saa su ne. mais ñooñu paas na 18 ans de. non attends xale yee ma gis 18 ans ci la ñuy yem wala 17 eh. ans non attends c'est la pure vérité ça. man am nañu non non non ay xale yu ndaw mais même bu ñu amoon 30 ans sax dafa rafetlu seen seen seen seen seen i der. li dafa ñaaw mhm. ndax ñu ngi ci YouTube bi. Mhm. te lii kañ lay fay ci kër àddina. Mhm. xale bu jigéen nekk xale bu ndaw ñu ne yow demal nga jàngi ñu defe na yaa nga jàngi nga dem di jouer ji porno. loolu ku ko mës a gis. ba def ay change maanaam. pare nag di def lu bon di filmer seen bopp mais léegi ana sutura. ana valeur jigéen. man soxna aw Fall dama jommi. barke Sëriñ Bamba tey dañ ma war a invité ci rajo. ndax ci loolu ci teem boobu laay dem war a wax. tere nga nekkee bu bu laajoo tere bu tàkkee tere bu takkee rajo na ko maj maa la wax rajo na ko maj nga wax rajo. <laughs> Ah, rajo la nag rajo bi moom sama rajo la ah, dinaa ca dem. waaye daal lu ah, yéeme la lu ma jaaxal lool lu yéeme ndax dañ naan àqiru jamaan la ñu nekk ci la ñu nekk c'est la pure ndax boo demee bay tëj saison war nga mën a tëjee leneen lu dul ne ñu def nu nga tëjee. kon ñoo teg tëj saison. dañ doon teg saison xam décision yooyu man man xama woon teg saison. bañ a xam a ah, xanaa néew ma ci réew mi man fii laa juddoo man Dakar waas laa di yàlla ma jox yi rek ma ciy door mhm. yàlla may ma xam-xam bi ma jàppale doomi aadama yi waaye nag ci dëkk bi laa dëkk. Mhm. dañ doon saison yàlla nag weer leen. ndax koor gi koor yàlla suñu borom mi nga xam ne koorum promotion la ñëpp war cee mën a jaar jàll man cee am wàcce seen i bàkkaar xale na dañuy tëji pro euh, euh, euh, saison bay def lu bon di defante lu bon di filmer seeni bopp di génne seeni awra ku ne nag ku góor ki naan man nii laay ah eh, eh, oh. mais mais mais sànq. oh oh oh, oh, oh. non man dama jommi. ah man heureusement ba saanu ko parce que loolu moo tax mun ma xuus si question yi parce que saanu ma ko moo tax. Mhm. Euh, parce que damay dégg rek xaw man moom. xale yi def nañ euh, musiba barke yanant bi def nañ musiba. xale yi dañ dañ dañ doon teg saison yaay yaay. Mhm. teg saison ba ci defante lu bon di jël ay vidéo ku ne di def sa xoo sa waay nu mu lay kii naan est que man ñeme naa waxaat ci loolu ñu doon wax. non man kay dégg ma ni wax sañu ma ko man kenn ku ne yaa nga naan sa morom nii laa mëne kii naan nee laa mëne ku ñu jigéen ngeen naan ku nekk euh, sama sama sama copain nii laay nii fii laa mën a yegg ci oh oh li ñaaw na. xaram na oh, oh. ñaaw na. lii bon na ñaaw na ci ay jigéen lii rafetul xale nga waaye bu ëllëgee yéenay doon yu mag kon def leen lu rafet wax leen lu rafet bu ëllëgee bu leen defee ci vaar bi du ngeen am gàccee mais lii gàcce la ci ay xale de xale day nekk xale waaye ba léegi da ngeen di nekk mag de. mais mais mais naa foofu nga wax ñoom ñu def baaxul mais tamit Sénégal yi tamit am na si part de responsabilité ñenn ñi laa mën a wax. parce que tey jii vidéo yi euh, est-ce que war nañ war ko partage di ko partage bu muy law wër Sénégal est war nañ toog est que ñoom war nañu toog. di def seen i porno ba pare di ko filmer. moom moom laa la wax mais. kan moo kan moo yor toor bi. ñoom ñoo yor toor bi. mais tamit si benn part responsabilité pourquoi tey jii nii bu yemoon si bu yemoon vidéo yi su ma si jotoon Khalil envoyé ma ko. mu mm-hmm. bañ ko envoyé mu bañ la ko envoyé kon du maanaam du am ko sa beneen morom amu ko fu mu ne fu ne lu ñu lu waay nit ci benn virgule ba nga daal di koy am sa génne ko ko kon donc ñoo war a am xel dëkk bi lan ñaata ñaata ñaata kii lañ fi génne ay nit di leen weeje sutura kañ la xaaweeku ñaatal nga dégg fi ay daga ñoom waruñoo mën a am xel ci loolu xam ne lii kat bu mën mën naa gën te bu génne mën naa yàq seen der ñoom ñoo waroon a am xel nit yaay sàmm sa der si am nañ ci parce que xam nga lu tax doom bu ñëwee indi la indi la portable bi jar trois cent mille mbaa quatre cent mille war nga laaj ba xam fan la ko jëlee jar na nag nga sol sab jokkin man ne dama am sama jokkin man waaw raag ba dugg baat vocal ma noonu la mag di def ci kër waaye nag xale yi ma ngi yar nañ de waaye xale yi ñoo dëng de ndax fi ngay waxee sam si si malak saala su doom mën na mes dem yoonam doo xam ci lu mu ne xam nga gën a tàggu ne dem école mhm. école nga mën a gëm dëgg neexul xam nga maire timit dañ leen di dañ leen di critiquer lu baree bare baree bari mais na xale ñoo dëng ndax gën a tàggu ne école laa jëm jaar ca mbuur dem tëdd tëdd tëddam def li mu war war ta def ah wax lu mu war ta wax ba ñu filmé ko ba mu tasaaroo yow mi yaay yëguloo ko ndax kenn du yeba sa doom ne ko demal nga joué pour na doom ju am 18 dëgg neexul mhm. yaay dafa metti mhm. te xale yi nag dañu war a yërëm seen yaay wallaay moo tax yaay yi sonn nañu mhm. yi lii lii lii lii xaju ci ci ci xolu yaay dafa metti ci xolu yaay xale war nañu delluwaat seen xel mi de te xam ne xale day doon xale tey mais suba da nga di nekk mag de ndax man mi toog di wax ak yéen sama démbaa nga ni ma toog di ko seetaan tey maa ngi ni nekk yaay attention xale day dekk xale mais bu la ëllëg mën nga nekk mag te xale day dee mag day dee attention na xale def très attention ci si lu ñuy def topp sa bakkan ba def nekk su le noonu maa ngi yow miy góor même xale yu góor yi wallaay amatuñ valeur sauf man bu nekk yaay première bu ma yàqal sama émission bu ma yàqal sa yaay première yaay première yaay yaay setaan vidéo ba yaa ma ci cuq yaa ngi may dégg baax li ma la wax bu ma yàqal sama vidéo bàyyi ma ma dem xale yu góor yi ñu day waar lañu ñañ ma baal ak ña ma ko war a wax parce que am na xale yoo xam ne nag wax dëgg yàlla ñu am diine lañu. comme man xale yoo xam ne ci xàq bi xàq lañu nekk. waaye am na xale yu góor yoo xam ne foo rekk nekk seen bopp yi. nañu bàyyi loolu te xam ne foo wayul wayulul àddina de. Mhm. foo teewul àddina de na xale yi delluwaat seen xel. waat ci yoon boo dee chrétien demal église di di julli ci église ba boo dee julli dugg ci jàkk yi xàq bi xaq baa nga fi ah mam borom Tuubaa am na lu mu fi bàyyi mam Alaaji Maalik am na fi bàyyi chance bi ñu am ñun sénégalais am na ñoo xam ne yoo xam ne amuñu ko de góorgóorluwaat leen te xam ne bu leen yàq seen réputation dëkk dëkk bi dëkkub teraanga la dëkkub jullit la na xale yi xam loolu lii yàq réputation dëkk la nañ ko arrêté te lii dañ ci war a def sanction nag lii sanction dañ ci war a am vraiment def ay pône def ci ay vidéo muy tas bi dëkk bi di yàq yeneen xale yoo xam ne ay xale yu baax la ñu ñu defe ne lii moo baax dañ leen a war a sanctionné mmh. xale yooyu ñu jara san fonctionné la ñu mmh. waaw loolu nag moom dañ ci ah, dañ ci interpellé. Euh, euh, gouvernement bi bi. lii nañ ci taxaw ah. leen amatuñu fruit. fruit ndax yéen. ah, ah? fruit duñ koy dee. fruit ana fruit ana fruit ak awray jigéen. waaye xale yi rek li leen waay. ay pom bu xonk bi wala buñ kii bi <laughs> bu verte bi <laughs> ma ngi yóbbu Sénégal astafurlah yaay booy baal ma de damay def émission rek mm-hmm. euh, mbokk internet yi jërëjëf at mel ni dañuy pare des na beneen beneen boo xam boo am solo la parce que tey temps yi tamit gis na ko wax nga si Adji Sarr ak Sonko mm-hmm. mais dafa mel ni population Sénégal la plupart laay wax du mu wax ñëpp mm-hmm. ñëpp d'accord ak yow bien sûr tey jii ñu gis benn sëriñ boo xam ne euh, bëgg maa tudd turam bëgg maa jaar si turam mu génnaat def yeneen révélation ne kii di Adji Sarr moom sëriñ moom mooy moo nekkoon taalibeem tey jii dafa génn ay saatu boo moo ni ko lii nii ay dil la woon noo déggee kàddu mooy li la wax rek moo taar réew mi nga bu dee da ngay dili dil ci turu. ci bàyyi dox naa moo taar réew mi moo taar réew mi loolu duma ki dañ di ko wax dëgg neexul yàlla dëgg la bëgg. sooy dund waxal dëgg sooy dee waxal dëgg mais aji saar ku ne xam nga ne moo tëj réew mi ak képp ku ko mën a jàppale nag yaa tëj réew mi aji saar bu demee ba naan dil la ñu naan nee naan dil la ak du dil xam nga ne tëj na réew mi ndax gàkkal doomi aadama ndax yàlla dafa ne ñuy mooy na fa ñaata nit fekk yoo xam ne bokkuñu fi ñu jóge mhm. ku fekkee ba Adji Sarr di kii ñu ne Sonko dal na ci kawam comme na ko fekkee kenn mënu ko fekkee non c'est pas vrai kenn fekkew ko ñu bëgg a ñëw xotti waruma jàmbur yàq deram comme ni ma ko waxee woon ca waa di sekk mhm. nañu bàyyi yokkante der bi ñuy def nañu bàyyi xotti war ma doomu jàmbur yi ñuy def mhm. na ñu bàyyi lañuy def Adji Sarr nee la bu la jigee lii bu la jigee ma xam ne mër nga man maa la ko wax bu la jigéen nga xam ne mbër nga nañ dem ba ca kanam après ngay comprendre. tudd nga ko sànq foo xam ne fa lay ñëw muy kii di Waly Balago Seck am yenn sëriñ yoo xam ne génn naan Waly day seet Waly ku dem si. Waly li muy def àddina yëpp teg nañ ci seen bët day wooy di bëggee kenn gisul Waly Seck di sëriñ to wala muy muy muy seet. Ah, waaye lay def di bëggal doomi aadama yi di jàppale doomi aadama yi nañu bàyyi jàmbur wax nañoo wax ba xamatul lu nga ñu ne ko seetkat nga eh Sénégal a mën a wax. kooku sëriñ ma ni Sénégal a man a wax comme yow déggoo li man a wax la mu wax dara du ci dëgg man soxna Ofane maa ko wax Wally sekk li muy def ñëpp ngi ciy teg ba day day day bëggee di way di seral xolu doomi aadama c'est le c'est le centre des jeunes loolu lañu waxa centre du peuple du peuple kon nag nañu bàyyi Wally wax nañ ko lu ne waxal nañ ko ko léegi nag seetkat lañ ko jiiñ waaye yow dëkk bee toj lii la mu doon nee na concert bii di ñëw waa hmm? c'est concert bi muy def grand théâtre ku fa dem sa yaram sa yaram safara bu dee kàddu yooyu lay def <laughs> mais bi dee na man bi doon laa dégg ba ma ko déggee ni laa reewee. non non non non non non non non loolu moom dafa mel ni affaire la moom vraiment loolu du ci wax vraiment. mais jotaal jotul kon fu mu toll nii ngeen xoolaat maanaam yéen seen milieu bi lu waay génn wax. ku génn déet déet ak ña ka fay wax déet bàyyil ba mu ñëw. bu toogee fii mm. nga ne ko la nga wax nangam ak nangam la nga wax daal moom la concerné man loolu concerné wu ma man daal lii di jëmale askan wi ci kanam li li nga xam ne non non non ma ne man borom xel yi sell yi laay waxal attention mm-hmm. borom xel yi sell yi yàlla suñu borom sax ba muy wax dane borom xel yi sell yi laay waxal waxuma ak dof de man wax ay dof taxuñu may wax cëre société bi lañ dëkk nag mais xam nga am na du dof da nga yaakaar ne ñii simmee ko def taat nee ni ci mbedd mel déedéet dof yaa ngi ci biir nit ñi jaxasoog nit ñu sañse bu ngi naanee ñu naan bu ngi defee bu ngi demee baal ñu dem baal dof yaa ngi ci biir nit ñi jaxasoog ñoom xam nga na dof mënut a weesu nga naan dégg nga maam Waly bu dem fee bàkkaaram xoolal bëgguma wax ci Waly loo xam ne nag ndax Waly sama doom la dama ko bëggal sama bopp man man yi man jaaxal ngeen mën a mel yéen seetkat doom la waaw dafa baax dañu gis ne muy def mu baax lool dafa baax mbaax rek ma ko may. loolu Sidy Diop bi sa doom. ah Sidy Diop. Ah, doom dëkk bi mi ngi ci ci dëkk bi. doom la mais mais nu waa Seck nu mel nu mel si yow yow tamit. bon je sais pas waa lii xam nga nag xol la xol la yàlla yàlla mooy tànn xol. Mhm. c'est le cœur c'est Wally mon cœur c'est neex bu ma boole Sidy ak ay mbokk Sidi bokk ma Sidi yow ko yaa boole. ma déet ma boole Sidi ak mbokk Sidi parce que tey ñoom ñëpp ay doom doom lañu. daal ma leen yaa ma ci waala ngeen doon wax ci waale lay wax. waxoo ci Sidi non non non yaa ngi door a rof Sidi. bu ma dugal ci euh, bon bu ma dugal ci loo ne xaw ma ko. Hmm. vraiment en vrai dire je suis si désolé je suis désolé. voilà l'intellectuel des voyantes. waaye loolu yàlla dogal si désolé waaye di xool waale ba mu neex la nga naan seetkat la. <laughs> yow war nañ laa xool war nañ jox la ay comprimé nga naan. da jàpp ne daa dof. ah oui complètement bu dee jigéen la elle est bu dee góor la il est fou il est dingue. dama ne li ma wax li ma wax nii. dama ne kii maa ko tooñ maa ko joxor bi man. kii wax ne Wally Seck seetkat la man soxna Fall maa ko joxor bi maa ko ne il est fou. mais mais nag tooñ. parce que léegi la tooñ déggoo li a tooñ moom mi xool doomi jaan moom nekk ko mën naan ab seetkat la bu dem mu ko wax seetkat Wally leen xale bi mais ko waxee waxee lu ko dafa descendé xale bi sonn na ba leen jàmbur bañ nag ma way na ko bàyyi leen jàmbur nag il est temps dañ ko war a may jàmm. avocat de Wally Ballago Seck jërëjëf yaay booy. waaw. kontaan nañ ñoo gën a kontaan. di santaat yàlla waaw noonu la man déggoo bala la yàllaa ma fi teg may wax ku mu neex ku mu naqari damay wax mm-hmm. ci kàttu na suñu borom di sant nag di gërëm ñi nga xam ne ñoo may déglu di sant nag ak di gërëm waa nga xam ne waa diaspora bi samay xarit yooyu nga xam ne ñoo fi ne bëgg ma lool def ma seen yaay man it ma doomoo leen mu neex lool tubaarkàlla macha allah di sant it waa Sénégal yëpp nag war àddina wër ngar këpp di nag gërëm nag sama toogaay fii ak yaw mi yow nga xam ne yaay sama doom tey moom sa àjj sa sa sañse bi moom tey moom macha ah, allah <laughs> kontaan naa lool waaw di kontaan nag seen waa sit yi di leen ñaanal jàmm mm-hmm. seen sit fi ngeen bëgg mu yegg fa yàlla na ko fa yàlla yeggal ci daraja Seydina Mohamed yàlla mi barkeel yàlla na mm-hmm. yàlla mi nga xam ne ku mu faral nga am ndam yàlla na yàlla ngeen bokk ci ñi yàlla faral ci daraja Seydina Mohamed xam nga tax nga neex ma mm-hmm. saa yoo yoon wi mooy sama tur sallallahu alayhi yoon wi du ko bàyyi bàyyi nga lépp ko kenn du moom rabbi sama waati borom addi borom jaami kooku kenn du moom mm-hmm. barki nent bi mm-hmm. aha jërëjëf jëf sama doom bu baax yow nga ñëw ak sa doom sa doom ñoo après xam naa ne moo koy may rek <laughs> ngay maye wala nga may kenn si kër gi. wala may ko si sëriñ sama sëriñ waaw sama laa koy may waaw. yaa ko si jëlee. waaw. ara ara après nga jox ma cent mille wala mais du la ko may. jërëjëf mbokk internet yow kenn du la de Wassare jërëjëf mbokk internet du Wassare TV merci beaucoup d'avoir pris votre temps de nous hmm. suivre. Maintenant, il est temps de donner du temps aux autres paradigmes. En attendant, je vous conseille de manger beaucoup de bananes et surtout de vous abonner sur Wassare TV. Ciao, merci beaucoup. Et Bon Ramadan. et bon Ramadan. <laughs>